parce e. sama maire yaa ngi ñoo nekkoon ci waañ bi tey sama maire yaa ngi di xaar seen doom waaw di sant yàlla ak yonent bi rek lañ waxoon rek la ñuy xale ak mag du benn dañuy santaat yàlla bu baax a baax a baax wasalaam. am tey bettu leen. bettu ñu woon ndax dañoo wóolu woon suñu bopp te waxoon nañ la ko wasalaam. li am tey bettu la. maa ko jur sama doom la may bàjjanam bokk ak baayam ndey baay kon xam naa li mu yóbbu làmb ja la. félicitations e bajane félicitations waaw yaay booy xew bi neex na sama doom macha allah tubarkalla macha allah am na jom am na fulla bëri na ci fulla bëri na ci fayda yéen moom Balla Gaye ba gisu mu daanal na ko suuf macha allah am jom yal nañ jiglaayam suñu xool sedd na macha allah macha allah yalla ko yalla fal cat yalla don tok bo doon bo jël roi bi indil ñuko ko tubarkalla waaw sant rek julik sayyidna mohamed rek dañ waxon la ñuy waxaat rek doole xalé ak doole mag duñu ben wa ndam li yalla na ko jig yàlla mel ndoxam glace ci mom ndam rek ndam rek ci barke seydina mohamed wa waa xale bu baax xalé bu am yar li sax ci moom milit ku du joxe cër du dama mën a joxe cër ñu ñuy bokk yaa am ndey baa xam fu ñu teg xam ñooy kan respecté ñu bëgg ñu Balla Gaye xanaa nag ah, ba ñu noonu macha allah am lu ma la waxoon sànq si bëccëg danga maa fee sànq may la booy ñaa day daan Balla Gaye ndax dafa am fu ma ko teg foo tegoon loolu fu ma ko teg xamne ne tubaarkàlla booy ñaa liggéey na lo xamne man na daan Balla gay liggeyal na ndeyam ndeyam ñaanal nako. bayam ñaanal nako ay famem ñaanal nan ko te kep kuy wara am ndam yalla da koy won nit ñi ma la ko wax ci bëccëg waxat na la ko. xaar nga ma lii te dama ni kep ku mu dajalat na la daal xana neex. inshallah waaw papa. waa man de nijaay laa waaye booy boy ñaan ah, mu mag deret dafa for mom rek la arab daf ni ilal arada décharge deret day rogalaat deret day rogalaat foofu lu ma waxoon waaw def na ma woon booy ñaa numéro 2 bu mag daanoon na baa Gaye mu mag waaw te tey combat boobu moo ñëwaat loolu la fi jógee léegi kii suñ ñaar yaay bokk ndey ak baay doomam mooy sama soxna deret dafa fort seen saat bi. mais fan la ba Boy Niang fan la jëm ñii ñu ngi naan Lac de Guiers wala mu jël Modou Lo. ku ñu am baax na nañ na ki nañ ñëw rek ñun les portes les portes sont ouvertes. Ah, xam naa yow sonn nga de yow mi nekkoon ci guddi. ñii sonn trop bi waaw waaw sonn naa trop. mais noo def ak pétale yi ñuy kaw pétale bëm bëm. <laughs> ah gis nga loolu noonu pétale yi tamit mooy loolu. te dama kontaan sama xol dafa sedd. parce que maanaam mën naa sama rêve moo réalisé wu tey. may bu ba booy ba bàyyee di daan Yékini defe naa 2012 xaw ma 2013 je ne sais pas laa toog ne Boy dina ma fayum te Boy Niang xanaa sama cousin la depuis boobu ba léegi moo tax keroog rek ñu ma koy fàtte naan yaa ngi fàtte ba bàyyee daan Yékini nga naan Boy Niang dina ma fay yooyu combat taxaw naa moo tax dama kontaan. Boy Niang moo la waxoon loolu. non man maa toog wax loolu noonu. jour bu bàyyee dafa daan Yékini maam lu ma metti ma ne Boy Niang dina ma fayum te loolu bu ma koy wax aw ma du 12 ans je ne pas. de laaxi moo tax dama kontaan sama xol dafa seddu guy. dox ba li nga waxoon am. di waaxi gis nga de di ko ñaanal ko waa des ak yeneen ndam yu gën a rëy xam naa ne mën na ko dina ko def. incha allah. fan la Boy Niang ku nekk ci kanam. waaw xanaa yu ñëpp bëgg rek. roi des waaw mooy kan Modou Lo. waaw moom. Ama Baldé dañ koy xaar. non ama ama nañu may rek ñu jël yoon bi moo gën a gaaw. waaw ah, na dem si Gris Bordeaux ma ñu yoon boobu rek ñu dem jéego mu jeex daal. ndax gars yi ne nañ kay sax da koo daw. waaw noonu nga demee waaw comme daw na Ama xanaa nag dinañ ñeme ñu sax ñu bëreeg moom. jaajëf yow xam naa dëgg nga dëgg nga lu métti buntu bi de ah. waaw noonu la noonu la booy ñaaw moo ko jar. mais noo yi booy bi. pétale yi lépp ko rek lépp nag booy ñaaw ko jar ndax ñun ki ñu jaral mooy booy ñaaw ñun fi lañ doon ne guddeeg bëccëg. amuñu jour amul jour bu ñuy toog di yendool wala bu ñu fanaanal ñu xoolatul ban jour ñun xale woon ba xàmmeetuñu guddeeg bëccëg ñun booy rek moo ñu ñor mu am ndam leneen ñoruñu te ndam yi di ñëw mooy dàq yi yii ñu romb incha allah ci kan moo nekk si kanam booy ñaar ah ñun bëri na ñi fi nekk euh, boo ko doon lim fii bari ñoom xam nañ seen bopp ñu war a dajeeg waaj xam nañ seen bopp bu baax booy ñaar ñi mu war a ko ñi ko ñi ko war a jël xam nañ ko bu baax a baax waaw ñooñu waayu waa Pikine tey ci booy kontaan ngeen non suñu xol dafa sedd ba mënuñoo wax sax lépp Pikine boo xoolee ASC Pikine ni ñëwee jël drapeau bi jox ko Boy Niang ah maire ville de Pikine ñëpp ñëw na ko ñun ñu sa ginnaaw mu nekk yan bu diis waaye nag suñu borom moom rek moo mën kenn mënul yàlla tegal nañu lépp waaw ah, ba mu sedd waaw yàlla tegal nañu lépp yàlla si ay ndam rek topp ci barke yonent yàlla Mohamed jaajëf amiin Pate bàyyi ma ko fii ci buntu bi waa soxna si loo dundee li am tey. ah xanaa di sant yàlla di julli si bi di wax alhamdulilah ndax euh, booy seet euh, yàlla dafa def booy ñaa Pikine yaatu lool mu bàyyi fëpp ñëw dëkk si fii ci suñu koñ bii muy cité pépinière te bu ñu ko defee wàcc na ndax fii la juddoo fii la yaroo muy doomu Pikine nag tey waa Pikine yëpp am mbégte li tax ñoom mbégte ñaa la. te doomu mbër la fii doomu mbër jarta tiitaroo. ki mu daan tam doomu mbër la de. waaw waaye doomu mbër jarta tiitaroo ku sa bàyyi ma sa sëgg ci arène bi rek boo juree doom war naa sëgg ci arène bi. dëgg la. kon nag su daanee Balla Gaye daf ko war a daan. xale la toll na ci ndawam. waaye lenn moo ci gën a am solo. dañ ko fal l'ambassadeur de non violence. mu woote jàmm dara ñaawul. dañ koy ñaanal ndam bi jikko di ñaanal yaayam Ana Seck Mm, yàlla may ko gudd fan yaay ju baax dafa jara tiitoro yaay ju baax dafa jara wut anaay sama yaay déggoo lay sama baay jar naa tiitoro macha allah waaw ñu ne deetate muy surtout Cheikh Yérim Ndumbane Seck kon booy nya doomu Pikine daal la doon 100 pour cent Pikine waaw yal na ko ndam bi jik te mu amaat yeneen yeneen yeneen ndam ci barke yonent bi ci barke maamam kontaan nan ci mi ngi ci yoon bi di ne mi ngi ci yoon bi di allah ah ñun dañoo gis mi ngi sama papa jaa ñew ñëw ah. sa papa combat bi yombul woon ci moom de yomb na ñun dara mettiwul ci ñun ndax bu jeexee rek jeex amatuñ lu ñuy xaar waaw ah. bu jeexee jeex na comme la gu gu Sénégal ay la bu la ci nga la kontaan bu fekkee maam yi bañ. barke Cheikh Ibrahima waaw. Boña génn na ci combat bi fan la jëm ku nekk ci kanam. ah ñun fi jëm bari na. ma ci kenn bari na. du ñu wax essence. gars ñu ngi naan est-ce que doo leen jëlaat revanche ci la de guerre. kooku waxuñu ay waxam. kooku moom waxuñu ay waxam ndax seen roi des arènes lañ daan dañoo daan mag daan rak déggoo ma de 2-0 laa lay tegal nii bu jeexee rek jeex na. moo tax daal yéen. billaay walaay bu jeexee rek jeex na. bëgg ngeen Modou Lo. bu ñëwee dañ koy ray moom dañ koy defal bagage. Modou Lo mi ngi daw Ama la gone yi wax xaw ma ndax dafa dawam dawul mais xale yi nee dafa daw Ama. ah bu dawee ak bu dawul lépp moom la mais ñun moom duñu dawkat Pikine lañ dëkk te duñ katu te duñ dawkatu peloton tamit. Ah. waaw tey duñu ragal féete duñu judd jéeri paas ñu dikk fii lañ dëkk. Ndakaaru Njaay jël Jóob gi buñ ko doon jaay fi nekk ñu jox ñu suñu wal barki Cheikh Ibra jaara kon waaw ma ngi lu nga jonge <laughs> ñaa bu jexé rek jexna mo lutax lu nga jonge <laughs> jaara yow lu la tax a jonge <laughs> a doon bàyyi faale nang ma sonal yow nag maa sonal li ngay def ah? wala ha baal naa la lii daal moom xam nga lu ciy topp. ñaanal ñu rek ay victoire victoire yàlla musal ñu ci cat ak làmmiñ làq ñu fu yàq àggut. xam naa du ñàkk ngeen def feet xam naa du ñàkk ngeen def feet lu mel ni tànd beere xumbaay ak mbumbaay lu mel noonu mi ngi seen i xalaat. bañ a xalaat waaye yow man dimb taxante yaa ma de sama taxante yaa dama ko andi ba booy naa daal suba nag yaa ngi commencé nag. suba yaa ngi commencé nag dama bëgg boo leen di def tànd. xale yi booy ñaa yaa ngi ne. boo leen di def tànd beer man kon ceddo bii rek laa dëkk soriw ma ko ñu ceddo laa ma teel koo koo def laa yaa ngi nii sama baaga su ma koy def la woo baaga ko jéeg di waaw kon yow Fall tàggoowuñu kon bu ko defee dañ lay bàyyi nga doxal noonu ci biir ci surface bi ndax booy mën naa ko war a am pam grand Pape Sarr Ngom grand bi yàqul Pikine grand bi jël lépp def ko Pikine eh, eh gànnaar eh, gànnaar gis nga lépp waaw mais gànnaar yi na de. mu rëy parce que boo nekkee gaynde gu ndaw jàpp gaynde gu màgget doo koy lekk lekk sadik nga koy lekk mais balla na ku ñu yab la de barki rasulaay ni mu bëree nii billaay wallaay ku ñu yab ah, ku ko moo ta mu naan day jël tànk balla ku koy ku koy ko jëlal tànk booy ñaa da koy da e eh, bo Niang mo dakh mbot te mbotegu mbotagul nit ci lamb lima lay wax ni ay mbapat la. man mbotaate ba léegi mbotagul kenn. ba léegi mbotagul nit. comme Eumeu Sène ni mu doon ni ko don seetaanee doon ay xalé di tok geej muy mbot ay nit Eumeu sen nit ba tay ñun waa Pikine dañu dañu déssel daan bo xamni mbot la ñun boy yi nga xamni 86 lañ tuddu japp 87 dañ ko daan seetaan mbot bi ñu don may geejju caaro nañu ko mbotol kon Balla Gaye nag ku mu dem toogee ko. waaw ndax Balla Gaye desal na beneen pigi naa ko. waaw. Balla Gaye déggoo la wala yàllaa ko natt. bilaay yàllaa ko natt. mais mais kan moo nekk ci kanam. Boy Niang instant yi moom.

jaamagan mafia bu fa ne da leen di sant da leen di ku si mel ne Abdou Seck Pimpi Taalibé ñoom ñëpp da leen di gërëm da leen ba si yàlla meen bi mbër lañu am mbër mi lañu am barki maam seen pédale bi nag na nga fexe ba bu ko taal ci kii bu mbër di fii yàlla boo fi taalee ñu rey mooy fi taal si kër fi taal pédale bi yi ah. lu yab laa muy mel ni ruy bu dog noonu. bon yaa ngi tooñ de. moom kañ lay moom kañ lay am doom sax dafa tolloon kii. mooy Balla Gaye mbër la de. <laughs> maa ñaanal nag suñu borom defal ko jàmm. te xam ñun ay xale lañ te yàlla xale la tamit. tey mu yërëm naa woon tey mu si te si xale nan la ko sax. mu ne nii. kaayoon na ko batay ma ngi bir keur Boy Niang 2 ñu taxaw de xaar mbeur mi wax deug yalla gina victoire bu reuy bi mu am fi ci stade Pikine bi ci kaw Balla gay numéro 2 won ma mbot bi nga ne. tay ñun ñoo xewle laqatu ñu wala ni la ko daane xola non nu ko daane ñu ko daane ñu ko daane. Oh. Euh. eh mu ag suuf ne ko ne la ko suuf ne ko tëddal duma sa moro et eh, ñun tàppatuñ de xam nga luñ fi bañ fii rey nit rek ak def lu araam mais tey ñun ñooy xewle lu ñu neex la ñuy def. ku nekk def la ko saf. lu ñu saf la ñuy def. bu jeexee rek jeex na de. yàlla ñun dañuy sant yàlla julli ci yonent bi di ñaan booy ñaa ndam li yàlla na ko jëkk xale bu baax la ku am respect la ku ñu bëgg la suñu freer bu baax la. yàlla na ko jikk mu am ay ndami ndami ndami ndam ci barke. booy eh, ñaa moom ci kan la jëm ku nekk ci kanam. ku ko neex fi ne ni mooy def lu ko saf moo yore bala kan bu ko neex lay tëlan tël tëlaale.